asalaamaaleykum asalaamaaleykum mbokki diaspora bi asalaamaaleykum ñu may seetaan asalaamaaleykum mbokki waa Sénégal ginnaaw bi ñaanee jàmm ca réew ma ñaan salaam di nuyu kilifa diine yi di nuyu kilifa aada ak ñëfa bépp tarixa bu nekk Sénégal rek di leen di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal salaam di jëf ba ma fay jógee la ma bàyyiwuma foon lii mais nag euh, ñun dañoo nekk ci réew mi nga xam ne jàmm rek ko nu ndax ñun tey ji ñun tey ku ne Fallou Seck ne Fallou Seck ku ne Fallou Seck ne Fallou Seck Italie tey jii bu nekkee ci Europe gii tey jii ay doomam nekk senegal ñu ne ña nga nekk ci manifestation yi di sànnante ak reyante kon moom liggéeyam daanaka arrêté na te réew bu ñu bëggee mu mu mu jëm kaw ca kaw ca kanam dañuy bàyyi euh, manifestation yu bari di ñaan jàmm di ñaan salaam ndax bu manifestation amee peut-être dana faj waaye dana yàq te yàq baaxul te même yàlla sax bëggul ku yàq. Euh, ñu ñaan ko ñu ñaan yàlla rek yàlla delloo si waat nu suñu sago yàlla mayaan nu jàmm may nu salaam di jee ñu euh, mm-hmm. mm-hmm. li ma la tey jii euh, tey par exemple Fallou Seck mu liggéey xamoo fu mu jëlee ba alalam gouvernement mayu ko ko kenn mayu ko ko ma yore sama oto yore sama lii kenn xamul lu ma def ba indi ko ñu ne kat taal nan ko daal nañ sama kër man mi immigré te sama yoon nekkul ca loola ah loolu de tooñ la te tooñ baaxul te tooñ du gàllaaj te yàlla bëggul kuy tooñ. tey immigré yi ngay wax ci sax bitim réew yaa ngi gis ñu ngi def ay manifestations dem ci consulat di def ay bagages est tey loolu ñoom lu leen di jëriñ la suba parce que tey seen kayit yaa nga xam nga tey jii tey ah, xam nga tey nit ku mer rek xam nga boo meree boo meree. Euh, def li nga xam ne boo mooy sax danga ko réccu ndax loolu ñooñu dañ ne euh, bu ñu yaakaar ne euh, Macky Sall la kooku gouvernement Sénégal moo ko fa teg te gouvernement Sénégal lu ñuy defal la tey ji Fallou Seck mu ñàkk passeport amul fenn fu mu ko jooyee du dem ci italien baa muy dem ci ambassade Maroc wala muy dem ci Nigéria ku ñu defaral ko foofu lañ ko defal ñu yàq machine ba tey jii police waa immigré ne ma tey jii suñ Fallou yow de tey lan lay jox sa këyit te amoo passeport waaw foo jëm fan nga jëm te boo amul passeport bi ñu la ko jox kon nag ñun warunoo yàq ñun immigré warunoo yàq danoo war a ñaan jàmm ñaan salaam kon loolu lay ñaan di ñaan jàmm sa Sénégal dafa ñaan salaam ndax bu amul manifestation yu bari du am tey jii euh, xuloo am ci réew man Fallou Seck ma bëggoon ñibbi senegal tey jii vol vol yi yaa ngi nii arrêté na yu bari ñi nga xam ne tey vol yi seer na ay millions yu dul jeex ñun la ñuy fay pour ñibbi si waat war a delluwaat sa réew doo xam lu sa soxna fanaanoo doo xam lu nga dëkk tey jii géejawaay ñu ne manifestation ba dugg na foofu nooy liggéeyee nan nga mën a xëyee dem tey utiwaar te ñun li ñuy dugal ca Sénégal gee amul kenn ku ko fay dugal même du gouvernement sax ndax ñun dañuy daan doole di def lamp di def lamp yi te duñ ca toog di def lekk gi te duñ ca lekk di def lal yu rafet yi te duñ am ay meuble te duñ ca def dara ndax ñun ñu ngi fii di daan doole te ñun buñ sañoon suñ réew mi am jàmm ba ku ko ku gis suñ réew rek ndax euh, tubaab xamul ay tey bu boobu bu la waxee damaa bëgg a dem sa réew kañ la ba amul problème ba amul problème la ci tegal est que amul guerre te guerre baaxul guerre de civil surtout baaxul buñ mane mënee wàññi di ñaan jàmm di ñaan salaam ñu bàyyi xiiro bi ak ŋaayoo bi senegal ku ko mas a xam xam ko ci jàmm xam ko ci salaam ku ko mas ci xam xam ko ci jàmm xam ko ci salaam kon nag jàmm ci la lépp xaj maa ngi ñaan yàlla ak yonent bi sëñ Tuubaa delluwaat nu ban delluwaat ci jàmm ndax jàmm tey moo waral di dijee Yves bu amuloon jàmm fii ñu toog ci gens yi toog fii ci restaurant euh, La Milan xawma italien kon duñ fi mën a toog ba mën a jàkkaarloo yow ba mën a wax ak ñoom yow ba mën a waxtaan ak yow ndax jàmm ci la lépp tey maa ngi ni bëgg a jot sama waa famille mënuma leen jot ñu ne WhatsApp yi dañ ko tëj sama waa famille waa tey ji ma war a yóbbante dépasse yóbbante naa ko depuis sa matin yóbbante whatsapp bi dong photo bi dong mënu koo jot ma bëgg woo ka ma wax pour jox ko numéro bi mënu ko jot kon ñun jàmm rek nu war waaw jàmm jàmm ci la lépp xaj ñu gën a góorgóorlu gën a fas jom gën a gën a gën a gën a xam rek di ñaan ñoom li ma leen di gën a euh, di leen ñaax mooy ñu ñaax jàmm senegal ndax wax ji nga xam ne day yàq baaxul ñu boole xol yi tàppe ko ndax Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar te tey jii bu ma jëlee sama nem damaa bëgg a jox benn président bu bees tax ma yàq sama réew kooku bu ñëwee balaa milliards yaa taxaw wala mu koy defar du ko fa fekk ndax quatre ans dafa gaaw te am na pont yi nga xam ne ñu ngi koy defar te ñu ngi koy defar ci ay huit ans kaar yi ngeen di wax yëpp ñuy yàq ak sutura yi ñuy yàq yëpp Sénégal ay millions ay milliards a ko fay def te bu fekkee da ki fi nekk ba indi keneen ba yàq loola bala koo defaraat dana yàgg na ñaan yàlla am jàmm am salaam yàlla delloo ci waan jàmm du ma wax Macky Sall ndax Macky Sall bu sañoon tey jàmm may am si réew mi euh, këca des muy Sonko bu sañoon jàmm may am ñoom ku leen soon tey jii fan toog ci sal billahi wallahi wa tallahi boo leen woowoon ne leen lii mu ne yàlla na yàlla delluwaat ci jàmm ndax jàmm mu ngi nii tey sama soxna mag naan ma marché ba dara amu fa tëj nañ ko Euh, bitik ba tëj ngeen ko lii tëj ngeen ko waaye ñun fu jëm nan la ñuy lekkee lépp seeraat ñu delluwaat ak kàppa kañ la ñuy wax ne dañuy baax damaa bëgg ñu ñaan jàmm di jéeyif di ñaan salaam di bàyyi ruube bi bàyyi commenté bi te àndaare laboraare dem liggéey ndax liggéey la réew mi laaj di wax ca kaw ca kanam ci lu baax loo wax kon nag di la ñaanal jàmm yow di la ñaanal salaam di nuyuwaat waa senegal di nuyuwaat waa Europe di wax rek jàmm bu amee. ñëpp nekk ci jàmm bu amul nag kenn nekk jàmm dara dootul ubbi di ca kaw ca kanam ci lu baax te la mujj neex lan wax caaw